boobu xale bi deux mois la am ne ma naa ko ko téel non non xale bi xamul yaay man lay wax yaay. mais moom yoru xale bi moom ay responsabilité am jëlu ko ci xale bi defalu xale bi dara. ki daane na bàmbaalee jur ñun tamit lu lañ mën a su son bi su génne way génne si télé bi def naa kaay leen xool sama papa. asalaamaaleykum internetu Sénégo ak kawteef ñu ngi leen di nuyu di kontaan saa su ne ni ngeen di taaxeeloo suñu programme sur nos différentes plateformes tey nag émission suivi de cas lañ leen di tegal euh, ginnaaw bambali ak tiida bi ñu amee ab déclaration ci soxna si kii di Tida mi ne Bambaly ñoom ñaar dañu am doom bu jigéen bu am quatre ans te kii di Bambaly Seck nanguwut reconnaître boobu paternité tey nag ñu def suivi de cas ñëw ci xale bi nga xam ne moo am quatre ans te moo waral coow li muy soxna jaara soxna jaara boobu fan la nekk ci ay yan loxo la nekk moom ak yaayam boobu Tida kañ lañ gëj a gisante ndax Tida mu ngi def li ko war ci doomam boobu di soxna jaara loolu lépp dinañ ci dugg euh, ci biir débat bi xuus wax ay question ay leeral yu am solo mais dañ leen di bàyyi ñun nuyanteeg suñu invité avant ñu koy présenté soxna si ñu ngi lay nuyu. waa maa ngi leen di fay maa ngi leen fay maa ngi tudd maa awa maa ngi leen di fay waa Bébé Diarra fii la nekk waa suñu kër la nekk ñoo ko yore. maa awa yow yaa bokk ak ki nga xam ne moom la ñu tuddee ki nga xam ne mooy jaara est-ce que mun ngaa revenir ci sa lien yow ak turandoo Bébé jaar waa dëgg la man man ak ki tuddee xale bi ñoo bokk ndey ak sama mag la man ki daa man a ma bokkuñ dara bàmbaali noonu mais ki tuddee xale bi laa bokkal benn jour dama dem. sama benn salon mag sama mag bu jigéen ki ñu tuddee xale bi dafa yore salon ma dem foofu di leetu ki daa gis ma foofu ne ma naa ko téel xale bi man tamit loolu 2019 bi la rek bi mu accouché waa boobu xale bi mi ngi am 2 mois xale bi 2 mois la am mu ne ma naa ko ko téel léegi sama mag bi ne ma ah waa téel ko affaire yooyu ma jël xale bi bi ma ko jëlee andi ko sama kër ma andi ko sama comme man dama am jëkkër damay sëy ma toog toog toog ba une heure du matin deux heures ki daa woowu ma jëkk ma koy woo jëlul téléphone am ma jël taxi ànd ak sama doomu jëkkër ñëw inta quinze fekk fa sama mag bu jigéen bi ak doomam ma sone ñu ubbil ma ma ne ko turandoo maam jaar bi de la ma yaayam dénk depuis ci ngoon ay 16h di h yooyu mais boobu ba tey ñëwul léegi te guddi na instant bi munu ma tëdd ak moom comme dama am jëkkër affaire yooyu kon teel leen ma ko ba yaayam woote su wootee ma teg tegtal ko que ni xale bi fii la nekk léegi ñoom tamit ñu d'accord ma jox leen xale bi ñu dem ñu téye ko ñu téye ko téye ko ko téye ko wootewul ñu koy woo jëlu ñu koy woo jëluñu jëluñu ba mu def trois jours kiidaa ñëw bi mu ñëwee woo ma téléphone ne ma ana bébé jaara ma ne ko bébé jaara dama ma waxoon yaa ngi koy ngi koy ñëw jël si alors ko jël si woo ko te instant ma dama yoroon jëkkër mënuma téye xale bi mu yóbbu naa ak sama kër mag kër magu maam jaara foofu laa ko yóbbu soo soxlaa xale bi nga dem fekk ko foofu mu ne waa ma ne waa mu coupé mu bàyyi waat ba si kanam mu woowaat ma ni ma tegtal ma foofu ma tegtal ko sama kër mag bi mu dem foofu léegi bi mu fa demee tax si la jël bu mu ñëwee bu mu demee mu woo sama doom mag ma jox ko sama numéro doom mag bi yore xale bi nii mu woo ko ne ko xale bi laay jël si sama doom mag bi ne ko waaw mu ñëw mu jël xale bi dem mu dem dem dem ba ay suba si la ko jël si dem ay 16h 17h 18h mu delloo si waat xale bi depuis boobu ba tey ñun xamaatuñ si ki daa dara du couche du meew du tubéy du dara da parce dafay dugg dafa nekk internet bi di wax que ni moom moo yor xale bi alors que loolu amul xale bi ñun ñoo ko yor deux mois lañ ko joxoon ba xale bi am na quatre ans le quinze octobre bi passé la woon anniversaire am boobu ba tey ñun ñoo yoree xale bi moom defu ci dara du couche du meew du yére du def dara jour bi ma koy jox benn baala ma jox benn couche benn biberon benn meew loolu la ma jox ak 2000 francs man maa jëlaat taxi paasaat ñëwaat yóbbuwaat ko inta quinze musul defal xale bi dara ñun nag loolu moo ñu métti le fait que yoru xale bi ba pare taxaw ci internet di wax ne moom xale bi moo ko yore xale bi xiifu xale bi maru xale bi gaasa xale bi xiiful maru raflewul mais moom yoru xale bi moom ay responsabilité am jëlu ko ci xale bi defulu xale bi dara responsabilité boobu dinañ ci dugg ci kanam dañuy taxawagum ci point bi nga xam ne am na solo ñu leeral ko internet yi ñuy seetaan ak euh, waa Kawtef ak Sénégo moo nekk xale bi moment bi bu ñëwee seen loxo ndaxte ci sa kàddu yaa ngi naa ne première tentative bu ma ko mënee tuddee noonu mooy bi mu la ko dénkee nga toog trois jours gisoo ko ci troisième jour bi la ñëw jël si doomam bi mu ñëwee bi mu leen di bàyyee xale bi daf leen koo jox ndaxte téye leen ma ko pour mënuma koo téye parce que damay liggéey wala nan la fa demee dafa ñëw rek jox leen ko aw yoonam dem. dafa ñëw ne téye leen ma ko maa ngi ñëw maa ngi ñëw boobu ba tey ñun gisaatuñ ko ba non parce que par des fois tabaski daaw ñëw na jël si xale bi. trois ay suba si noonu ngoon si tamit mu andiwaat xale bi mu delloo si waar xale bi ci même jour tabaski mu delloo siwaat ko moom noonu lay def moom téewul xale bi xale bi musul fanaan ak moom musul fanaan ak Kida xale bi mu juddoo ba tey 2019 ba 2022 bi xale bi musul fanaan ak Kida musul fanaan ak moom mais bi mu leen ko bàyyee woon na leen xamal nekk leen carrément parce que xale bu am deux mois soo ko bàyyee nit te feragul am na ay responsabilité ak aussi moment bi muy fer jamono yooyu yëpp nan ngeen communiquer ak moom ñun woowuñu suñ koy woo duñu jël ba tey nii may wax ak yow ki yor xale bi nii kii daal dafa bloqué numéro bu koy woowee du ko jël même xale bu feebaree sax bu ñuy woo kii daa kii daa day bloqué numéro yi du jël ba nii may wax yow kii daa bu ñu ko woowee daf ñuy bloqué du ñu jël appel. léegi turandoo bi rek turandoo bi comme que yow turandoo bi nga nga nga nga bokkal yi mooy sa mag wala mooy sa rakk nga présenté wu turandoo bi loolu bi mu amee woo nga ko avisé ko. waa moom sama mag la woo naa ko. ma ne ko démb bi ma jógee sa salon bi ma ki da joxee xale bi ne ma naa ko ko téewal boobu ba tey woote waatul mu ne ma ah ma ne ko waa mu ne ma maa ngi woo moom tamit mu woote coupé ne ma ah jëlu ma ne kon tey ngeen kaa noonu rek ba bu ko soxlaa dina ko ñëw jël si moom woo naa ko wax ko loolu mu ne ma xaaral ma woo mais boobu ba tey ki moom jëlul téléphone am wu ko ku ko woode day bloqué bi wala mu coupé la. léegi jour bi njëkkee ñëw pour jël xale bi comme nee nga ay période fête tabaski day xëy ñëw jël si ko bi mu ñëwee avant période yu fête euh, est-ce que euh, wax ngeen ko li mën a continuer parce que téye doomi jàmbur su ma ko mënee tuddee noonu responsabilité la ak lu mën a xew suba. waa parce que sama ki ko yore sama doom mag bi nga xamante ni jour boobu moom laa ko andil nee na ko lii duma ko mën parce que tamit mënoo jël doomu jàmbur rek jox la ko rek nga téye ko noonu te amul benn lii. léegi da ngay wax xale bi nu muy demee danga nga ko jox pour mu téewal la ko wala da nga bëgg ku la ko garder avant affaire yooyu waxul dara lu leer mu ne en waaw mu ne teel leen ma daal maa ngi ñëw moom teel leen ma maa ngi ñëw rek lay wax ba fii ba xale bi deux ans ba quatre ans maa ngi ñëw loolu rek lay wax loolu kese lay wax. ci xale bi nag ak papaam jéemu cee wax ak yéen wala jéemu cee def dara ndaxte Tida bi mu génnee wax ne Bambaly moo jur doom bi ci la ko sénégalais yu bari xam. waaw man côté boobu moom mënuma ci wax parce que man xaw ma bàmbaali si télé yi rek laa koy gis moo jur bébé jaara juru bébé jaara man xaw ma man ci semblance bi tamit ah nañ bàyyi noonu rek après Sénégal yi dinañ analyser man sama mag ki turandoo bébé jaara moom laa bokkal mu jël bébé jaara sànni ma ko deux mois ba quatre ans tamit mu taxawaat ci internet di wax lu ko neex naan moom moo yor xale bi xale bi yoru ko ñun ñoo ko yore ñoo ko dugal instant bi mënul jàng parce que amul papier arxuraan lay jàng dañ ko dugal muy jàng alxuraan sama doom mag bee moo ko yore di ko dugal ko alxuraan muy jàng di wàcc mais cadre bambali bi moom mënu ma ci wax parce que man loolu leeru ma waa bi ñuy nekk man fekkew ma woon voilà ci turandoo bi it moom tamit dañ ciy taxaw ndaxte lii yëpp bu ñu xoolee it turandoo bi peut tiidaa dafa jàpp ne moom ak turandoo bi benn lañ su jëlee doomam bàyyee ko mbokk turandoo bi benn la turandoo bi moom tamit lañ la ciy def ci quatre ans yëpp moo ko jël en charge. waa moom turandoo bi sax moom kii du sama xaritu mag moom sama mag da ko jàppee comme rakk walla da ko jàppee comme rakk léegi mu accouché affaire yooyu seen waa kër woo ko. ki da accouché na affaire yooyu mi ngi bi mu ñëw bu mu ñëwee lu fa war yëpp wax dëgg yàlla am def na ko fayal ko hôpital bi génne ko hôpital ñëw indi ko ci kër gi defal ko jëndal ko xar defal ko lépp sama mag bi def na loolu yëpp sama mag bi daal moo ko ngénte maanaam kii daal sama mag moo ngénte bébé Tida ni muy waxee dafa mel ni ku am indépendance financière ndaxte boo déggee ci kàddoom mu naan bàmbaali bu ko soxla mu woo ko wala mu soxla xaalis kon bu ñëwee comme Tida bi mu amee doom turandoo bi ngénte ko yaa problème. ah ñun moom bi muy defal bàmbaali ñun xamuñu mais xale bi moom defal ko dara. moom ci daa moom bu ma déggee xam na ne li may wax inventé mu xale bi defal ko dara du yére tabaski du yére korite du yére dara événement bu jot fii ñoo koy xottil ñoo koy jëndal dàll ñoo koy defal lépp moom amul ci xale bi soxla instant bi li mu génn di wax nii jëkkatiwul téléphone am sax woo waa kër gi wala mu def dara ñun yëguñu ci dara sama doomu baay bi moo xëy suba teel benn collègue am woo ko waaye bébé jaara bi may gis ci internet bi bokkul ak bébé jaara bi nekk seen kër sama kii bi moom tam mu jóg taal connexion am gis ko ne moom la loolu lañ ci am ñu woo ko mu coupé ñu daf téléphone bloqué ñu ki yor xale bi woowaat ko ne ko yow lan moo tax ngay jël xale bi photoom di ko def ci internet bi affaire xale bi res nekkul say responsable affaire bi mu ne ko dinaa la woowaat dama feebar coupé téléphone am bloqué tey nii dégguñu gitaar turandoowam sànq wax naa moom téléphone mu ne ma man damay xaar mu yëkkati téléphone am wax woo ma parce que bi muy def lii su ma woowoon xëy na am na neneen mais woowuma ma yëgalu ma munu ma ci wax mais maa ngi koy xaar ba mu ma téléphone su ma woowee man dinaa am lu ma koy wax mais comme woowu ma munuma ci wax dama koy seetaan ba mu yëkkati téléphone am woo ma woowul sama sama ki mu tuddee xale bi woowu ko woowu ko ba tey voilà. lan ngay wax internet yu lay suivre ci Kawtef ak Senego ndaxte it lii suivi de cas la ginnaaw euh, Tida ba mu génnee it wax waxam yéen tamit li ngeen di wax nii day nekk loo xam ne crédibilité waxam dina des. waaw dëgg la moom moo jur doomam moom moo jur doomam moo ko jur ñun juruñu ko mais comme daf ñu ko sànni bi xale bi amee deux ans ba am deux deux mois ba ni mu amee quatre ans moom def ci dara dama koy wax que ni moom pour mu jël xale bi du yombee noonu du yomb parce que ñun tamit munu jël xale deux mois sànni ko ay nit faale wu ko lijjantiwu ko du daraam du saabu du omo du couche du dara bàyyi ba xale bi am quatre ans affaire yooyu muy génn di wax affaire yooyu ñun mënu nekk tey mun na jàpp ne moom bu porté woon plainte Bambaly pour mu reconnaître doomam bu naree jël jaara yéen tamit di ngeen déposer plainte. bu plainte Bambaly pour mu reconnaître xale bi ñun tamit dañ koy plainte pour moom tam mu reconnaître doom parce que reconnaître woo da ko jël sànni ko ci ay nit ñun tamit xale bi du demee noonu. Mhm. xale bi du demee noonu te moom en plus ma wax benn affaire xale bi ku ko bëgg jàppale pour mu jàng pour ay papier na xale bi nekkul ci moom ku ko bëgg jàppale pour mu jàng. wala nga jàppale ko pour mu am ay papier so jaaree ci kii daa mun na am xale bañ a am loolu parce que xale bi fii la nekk xamul kenn fii la xam moom xamul ay mbokku yaayam ñun la xam ku koy jàppale nga ñëw fii nga jàppale ko pour mu am papier mu jàng parce que xale bi toll na ci jàng am na quatre ans toll na ci jàng voilà. xale bi kee lay wax yaay sama mag bi lay wax yaay boo ko laajoon tey kuy sa yaay sama mag bi lay wax moom xamul xamu ko xamul ki daal ok waaw ak kawteef ginnaaw bi ñu joxee ki nga xam ne moo bokk ak turandoo bébé jaara ñu ngi toog ak ki nga xam ne bébé bi mu amee deux mois moom moo ko doon nàmpal soxna si tur bi nan la. nday la waaw. xale bi nu mu ñëwee ci sa loxo ba nga koy nàmpal. xale bi dama sama sama mag sama rakk bu jigéen. moom moo nekk moo yor salon moom mu dem fa man xaw ma yogu ma si woon dara léegi bi mu fa nekkee moom mun naa dama toog ba deux heures du matin rek sama rakk bi fëgg ma man wax yow baa jàmm mun ma turandoo maam jaar dafi yaayam bàyyee depuis seize heures ba nga ne gisuñu ko te man dama am jëkkër damaa war a dem ti bug ma problème man ti ma xam damay jur ma tee xale bi ma tee ko ba am deux jours ba trois jours bi ci la ñëw jël si ko bi mu ko jëlee muy yendoog moom yendoowul sax après la ko indiwaat si même jour bi bi ma ma ko téyee ba léegi nag ci laa ne mu dem si docteur bi ma laaj ko ne ko est-ce que xale bi mun na ko nampal ndax bi ma ferelee yaagut mun ma waa mun nañ ko nampal xale bi laa continuer di ko nampal di ko jox bi biberon di ko boot di ko jënd ordonnance di ko téye ba tey ba am deux ans ba am quatre ans tey waaw. xale bi est-ce que xàmmee na yaayam comme que bi mu amee deux mois ba ni muy feree yow yaa ko doon nampal non non xale bi xamul yaay man lay wax yaay ankay yaayam bi mu ko jëlee yóbbu yóbbu ko tabaski daaw daf ko indiwaat ci même jour bi ndax xamul yaayam bi ngeen gisee Tida mu génn euh, def révélation ak euh, moom ak doom bi ak Bambali ak reconnaissance refus de paternité bi nga xam ne mi ngi koy wax di ko jooytu pour Bambali reconnaître doom ji yéen loolu nan la leen def xaaroon ngeen ko wala. Ah, am naa si lu ma metti moom ndaxte tey jii waaw am naa si lu ma metti na tegoon naa ne tey jii ñun ñoo waroon a génn wax pa moom ñun ñu ko yor gisuñu ko dégguñu ko depuis quatre ans ba léegi ñu ñoo waroon a génn wax. mais deful li du même bu nekkee téyewul doom ji mais pour xale bi kayit. ah waaw xam naa loolu moo tax ay pour papier ñu ne ñoo ngi ci doon lijjanti ay papier pour mu jàng waaye papier xale bi dafa jafe xaw a jafe ndax dañ lay laaj ay papier yaayam ay papier papaam waaw. dañu koy woo waa buñ ko wooy def ñuy man def des naa def ma bloqué sax daf ma bloqué waaw ba tey ci intérêt xale bi la ñuy gën a taxaw ci interview bi parce que ñu ngi ñaan solution am comme ni ma koy waxee présomption d'innocence ci cas yëpp lay am euh, mun nañ jàpp ne Bambaly moo ko jur mun nañ jàpp ne du Bambaly mais loolu test ADN moo ko mën a fësal mais tey fi mu toll nii ak sortie bi ñu def est-ce que du gën a may Bambaly mu am fu mu téye ne di du reconnaître li nga xam ni mooy paternité. ah man wax dëgg yàlla su ma waxee Bambaly moo ko jur waxuma lu ma leer. xaw ma bàmbaale moo jur xaw ma bàmbaale jurut dara wooruma ci wax dëgg yàlla yàlla laay waxal xaw ma sa bàmbaale mosuma ko gis. Hmm. ah loolu yàlla rek moo xam diggante moom ak Kida moom xam na yàlla xam na bàmbaale xam ne man xaw ma ci dara. Hmm. Kida ban genre ban genre ban genre soxna la euh, puisque fréquenté wu leen bu baax mais téyel ngeen ko doomam yan qualité wala ngeen nan ngeen ko mën a décrire. ah man ki daa xamul ma ko dara li ma koy gis bariwut xamul ma ko dara wax dëgg xaw ma si moom dara tamit waaw. sànq ki jóg mu ngi naan ne Tida bu porté plainte Bambaly pour paternité ñoom tamit xale bi du demee noonu yow mi nàmpal da ngay campé ci position boobu wala. waaw ndax day yomb. loolu day yomb ñun te mënuñ ko téye depuis deux deux mois ñu téye ko ba quatre ans gisul déggut nàmpalut bootul teewut fee mu feebar fajul deful dara ba tey mu ne day plainte kon plainte si kaw plainte lay doon ah xanaa lim ko fi teg boobu ba léegi gisuñ ko dégguñu ko ba tey benn bis ñëw mu day day plainte dem nañ si wax nañ ay mbokk gitaar yaay yaayu ki daa wax naa moom mënuma mënumaa yor téyel ma rek te yàlla tax te yàlla ngi may dégg daa moo la ni téyel ma munu maa yor tax mayuñ waaw kay téyel bu dee sa dooma bu dundee sa dooma xale bi yaay Tida moo la ne téyeel xale bi bañ koy yóbbu kër ma pernda est-ce que loolu tamit yëgoon ngeen ko yëguma koon booba maa ngi feebar sama doom bu jigéen bi dafa mënut a wax moo tax moom moo àndoon ak moom dem waaw ah, li mu koy wax li def rafetul ndax tamit ba muy def lii mënoon nañoo tàggoo ndax man lu ma noon magam laa ba pare mu jël xale bi di ko teg ci télé yi rajo yi lu rafetul man daal loolu laay wax li mu def daal en tout cas man rafetlu ma ko waaw. soxna si tur bi nan la. maa ngi tudd Seynabou Seynabou laa tudd waaw maa waaw maa ngi ki ki nga xam ne moom lañ tuddee jaara maa ngi moom ñoo bokk sama doom baay la hmm, sama doom baay la. waaw parce que man depuis démb ba léegi sax maa ngi gis ñuy naan ay te dafa am ku ko yónni wala loolu mais ñun ñi tamit di génn di wax ñun suñu yoon nekku si kenn yónni bokkuñook bokkuñu ak bàmbaali bokkuñu ak tamit ak kidaa suñu yoon nekku si li kidaa def moo nekk loo xamante ne lu rafet la parce que moom dafa génnee biir privé am weer xale bi te euh, maanaam wax dafa nekk loo xam balaa nga koy wax da nga koy xoolaat parce que xale bi ëllëg dafay màgg te lim génn wax. yow ñëpp dégg nañ ko ku ne xam na ne rafetul dangay ngay lire commentaire yi di xam ne lii mu def nii ñaaw na ndax xale bi ëllëg day màgg loolu la. ci sa kàddu yaa ngi wax ne da ngay ni génn leeral ci daa posé naa ko question bi ndax kenn nekkul sa ginnaaw te it bi mu toogee ci beneen sit leeral na ni kenn nekkul ginnaawam yéen tamit dama leen di posé boobu question est-ce que kenn aussi nekkul seen ginnaaw nee leen wax leen. wax dëgg fa yàlla ndax ku dee ak sa bàmmeel. kenn nekkul suñu ginnaaw te tamit ñun suñu yoon nekku si ci seeni problème ñoom ñun xale bi biñ ko téyee bi muy am deux ans am na ku ñu wax sax ni ñu bi mu demee ba ba ba nekk si ñun ba nekk am deux ans am na ku ñu wax ni ñu mënu leen jël xale bi ngeen yóbbu ko kër magam waali ñu ne ko suñu yoon nekku du ñu dem si waali ñëw rek ni ko xale baa ngi nii loolu duñ ko def loolu seen problème ñu suñu yoon nekku si en tout cas li ñu wax moom mooy ñi ngi téye xale bi tey yàlla rek tax yaa ngi dégg bëgg nañ ko na yar ba mu màgg mais kanta papaam la wala du papaam wala kii nañ ko fi ñu suñu yoon nekku ci te tamit kenn nekku suñu ginnaaw dañoo ñëw pour leeral ni ki daal li muy wax du dëgg ñun ñoo yor xale bi dafa dégager ay responsabilités moom su blâmee Bambaali ñun dinañ ko blâmer ndax moom tamit ni Bambaali def rek la def dafa dégager ay responsabilités ci responsabilité yooyu moom toog na carrément ne moom xale bi moo jël en charge dépense yi xale bi nga xam ne mm, soxna bébé jaara bu 4 ans moom moo koy gérer kon boo ma ñëwaatee fii ñu won ma bébé jaara wax ma ne depuis deux mois la ko tiidaa bàyyee leen ko seen loxo ba tey quatre ans mm, y'a problème am na lu ci xaw a laxasu waaw man de damay toog sax di poser wu question boobu nag lan moo tax moom mu wax ji wax ndax doomu aadama am na yenn yoo xamante ne war nga ko ruus sax di ko wax ndax ñun ñu ngi ci dëkk bi xam nañ lépp tamit kii Kida xale bi bi mu ñu ko joxee ba léegi ci la dégager ay responsable du ordonnance du daal xale bi bu feebaree ñun la benn yoon la mës a dem kër Bambaali benn yoon la fa mës a dem mooy jour bi ñu ubbi Masaalikul Jinaan moom mi nga wax naa ni Bambaali da doon xeex ak moom dëgg la daf doon xeex ak moom loolu la wax. ndax moom sama doom mag bi moo fi ñun sax yëguñu ba muy dem ñun buñ ko yëgoon ñun du dem mais sama doom mag bi ko yor moo jékki-jékki ñëwaat ñu ne ko yow lan la mu ni kër bambaay lañ demoon ba ñu naan sax bébé bébé jaara fekk na bambaali toog mu di ko yee naan ko yaay sama papa nee na ba ba bambaa ni ko ndax yaa yore xale bi moom mu ni ko waaw maag sama rakk bi ñu dal ci kawam ni ko waroo woon a dem ndax uti woo fa dara du yow yaay lijjanti loolu ki daana du kuus du dara événement tabaski korité lépp ñun la bu feebaree ñun la lépp daal ñun na xale bi nag bëgg nañ papaam reconnaître ko bu fekkee moo ko jur bu leeree na ko reconnaître mu defal ko ay kayitam mu mën a jàng mais leneen lu ci des na ñun suñu yoon nekku ci. ba tey ah, suñ dernière question balaa ñoo yëkkati jootaay bi ñun gis nañ Bébé yi mais it nekkuñ à la place du juge Bébé Diary yéen mi nga xam ne yéen a ko yor ba mu amee deux ans ba tey Bébé Diary est-ce que nuru na Bambaly ci bopp ci teint ci bakkan ci bët ci gémmiñ waaw dafa am loo xamante ne moom du ñun ñoo koy wax parce que yow xam nga ñun xam nañ damay laajte non mais ñun moom yow gis nga xale bi bu baax da nga ne tëll ma ubbi la nga gis xale bi yaa ngi dégg man tamit xam naa ndax ñoo ko yar depuis mu am deux mois ba léegi mais dañuy bàyyi ñoom ñu leeral ko seen bopp ak nit ñi tamit ñu leeral ko mais du ñun ñoo koy taxaw naan bàmbaali moo jur wala jurut wax dëgg fa yàlla xale bi nag moom xam na ni bàmbaalee papaam ndax ñun teel nañ ko prévenir ci loolu tamit ndax dañuy bañ ëllëg mu koy yëg muy métti yaa ne comme ki daane na bàmbaalee jur ñun tamit lu lañ mën a su son bi su génne way génne si télé bi def naa kaay leen xool sama papa ñu ñëw di ko seetaan mais ba tey wax dëgg fa yàllam dara leeruñu ci yéen nag xam ngeen ñun tamit xam xam ne yàlla xam na non non yéen gis ngeen xale bi. gis nañ waaye xamuñ. ngeen yéen doo leen mën a wax ñun tamit duñ mën a wax dañuy bàyyi waa àddina leeral affaire bi yàlla tamit leeral ko waaw.